ange billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad asalaamaaleykum mbokki taalib yëpp asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Diourbel asalaamaaleykum waa Mbacke waaye asalaamaaleykum waa Xuru Mbacke ñu ngi fii ci bis bu tedd muy euh, bisu bi nga xamante ni fii la fi sëñ Touba ñëwee woon fii ci Xuru Mbacke seet sëñ Bay Jaxate mu tombeek fukki fan ak ñaar ci weeru diggi tabaski sëñ bi amoon yëg-yëgu ñëw fekk fii sëñ Baye Diakhaté ginnaaw bi mu ko waxee ni ko damaa bëgg nga ñëw sancal ma fii ci sama wetu rakk ju tedd ji muy maam bu Balla maam bu Laay mii ñu jàkkaarloo bërëbam maam sëñ sëñ taa jox sëñ Baye Diakhaté ni ko damaa bëgg nga ñëw wéttalil ma ko sëñ Baye ñëw moom it def fi ab néegam fii ci maanaam euh, wetu bërëb bi di ko fi wéttali gis ngeen euh, bu soxna jaar be nekk nii maanaam tey jii nag muy bis bu am solo ñu koy màggal Euh, di ko màggal fii ci kër sëñ Siraaji mu sëñ Mbay Jaxate di ko ànd ak sëñ Mbay Jaxate mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Siraaji maanaam nag ñu ñëw fi tey nag euh, gis fi mbooloo mu am solo nag mu mel ni am na fi liggéey bu xew euh, sëñ Xaadim mhm. seen liggéey bi mooy bañ liggéey. waaw lii de mooy jëwriñ si si njëriñ. waaw waaw waaw sëñ Dieng. waaw mu ne ni ab daayira la boo xamante si nii mboolem fédération ak daayira yi nga xamante si nii. lëkkaloo nekk Touba Xayra. waaw Xayra ak daara mi nopp. waaw loolu lëkkaloo nekk benn. waaw boole nekk fédération. macha allah nag tey ñoo ñëwoon si bërëb bii di wisit jaar jaar ku baax. Mm-hmm. ginnaaw bu ñu jugee njaareem. Mm-hmm. muy Jurbel. Mm-hmm. loolu moo ñu fi indi. waaw waaw jaar jaar ku baax ak ak ak i ak i foo xamante si nii rek jaar na fa am na yéene dem fa. macha allah nag ren lañ koy def première édition. ah ren Ah, ren mooy première édition. macha allah macha allah yéene rek fépp fu mu a jaar rek. Mm-hmm. ak suñu mbooloo ñu daan si dégg. Mm-hmm. ak tout tànk yi ak dégg si histoire bu ñu man see teg bët. allah incha allah si ñeene moom si jëwriñ daara ñu taaxu moom ci la bokk. daara moom la tudd waaye ay daara biir la mm-hmm. Masoro jëwri sëñ Mathiam Mathiam sëñ Mathiam jëwri waaw ñu saar bu baax kon sëñ Mathiam tey da ngeen a ñëw tombe ak muy bis bu am solo est-ce que sëñ Xaadim xamoon ngeen ni tey la màggal sëñ Bay Jaxate fukki fan ak ñaar waaw mu mel ni jëwri nag moo tawfiq boobu sax moom ko xamal ah macha Allah am solo lool moom ndeysaan tawfiq la waaw waaw waaw mu tombe ak sunu bésu ziyaara waaw waaw waaw waaw ñi fi teew nag mooy fédération Ashabul Janna ànd hmm. ngir liggéey bu tedd gi Sëriñ Touba ñu hmm. bàyyi ko fële ca diwaanu Touba hmm. waaw demoon fële ca Jurbel siyaare fa wàññi ko nag ñëw fii ci xur Mbàkke waaw waaw waaw lii suñu yitte rek mooy gën a jëmbalaat liggéey bu tedd gi hmm, hmm. waaye gën a gëstu sëriñ bi ngir gën koo mën a xam macha allah macha allah sëriñ bi dañ ko war a xam bu baax a baax bu baax a baax a baax mooy tax ñu gën koo mën a liggéeyal incha allah comme li